mbokk jullit yi ñu ànd xam ni bor day ameel nit bor wala lekk alali jaambur ci lu jaarut yoon ba faatuwaale ko loola musiba yu rëy rëy rëy moo ci nekk ànd ak jamono tey bi nit ñu bare bare bare dañ koo sàggane bor dey bu dee ki ko ame xam na li mu gàddu lumu bu guddee du sëddi su tëddee du mën a nelaw borde yi ki ko gàddu bu fekkee gore na bu àndeeg bëccëg gàcce la yendoo loolu musiba yooyu daje ci waxtu guddeeg bëccëg moo tax yonent bi day sallallahu alayhi wa bokkoon na ci ay ñaanam te ñu xam ko mooy da doon ñaan sunu borom yàlla musal ko ci bor muy ameel nit bor ba ca gën a doy waar gën caa tiitlu gën caa raglu mooy nit ki nga xam ne dafa faatu fekk bi muy faatu mi ngi yóbbaale ay bor abu qataada kenn la woon ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na yonent bi day sallallahu alayhi wa sallam nee na jihaad ci yoonu yàlla ak ngëm yàlla day moo gën ci jëf yu nit di def benn waay jóg ni ko waaw man de su ma demoon ci ab xare di xare ba ñu ma fa ndax saay bakkar yep sunu borom da ko fomp yonent bi ni ko waaw waaw sunu borom dana la fompal say bakkar yep budé ba ngay jihad ku muñ nga kuy sakku tiyaba ga di avancer rek te arrière ben yoon dawo waaja wane gannaaw yonent bi ni ko ngani yow lo wax jaaratal ci li nga waxon ba deg mu ni ko ndax suma sunubaram fekk ci jihad la faato est ce que samay bakkar sunu borom dana mako faral mu ne ko waawaaw sunu borom dana la ko faral su fekkente ni njàmbaarte nga àndal di avancer rek arrière te sàkku tiyaaba ba mu des bàkkaar boo xam ni borom la ko yóbbee mu ne loolu moom du saay wax waaye jibril moo ma ko déey nee na sunu borom nee na moom bàkkaar yëpp dana ko fomp ba des bàkkaar bi nga yóbbaale mu dib borom xadis boobu imam muslim génn na ko ci saxiixam kon wér na imaamu tirmisi génn na ko ak imaamu nasaa'i ak ñeneen ñu dut ñoom jàpp naa ne xadis bi dong buñ ci yemoon daal di wàcc minbar bi xutba ji jeex ku amum xel te bëgg a fekki ëllëg lu lay jariñ bañ faa fekk lu lay lor da nga yëg ne xadis bii kat day wane ni bor de moom ndekete ñun nin koy foyee ndeke mbir mi simpale wut noonu imaamu muslim nee na jële nañ ci abdullah ibn amr ibn al aas mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yughfaru lilshahidi kullu shay'in illa dayn xam ngeen ni jaamu yàlla yi la ca gën a rëy dee ci xare moom fooguma ni nit xam na ko loolu la ñëpp yi wut waaye ka dee ca xare la muy dee li muy wóor wóor toqab deret ba njëkk a wadd sunu borom dana ko ca jéggal ay bàkkaaram yëpp waaye bàkkaari bor yam am moom du ca bokk yooyu moom sunu borom du wax sax lu ca jëm ndax loolu yaa ko waroon na lijjantil sa bopp doog a dem mbokk jullit yi su fekkente ni dee faatu ci jihaad fi sabilillah yaakaar naa ñun moom lañ gën a bëgg ka xeeti faatu yi ñuy faatu yépp même boo faatoo woon ci jàkka ja sax yaakaar naa ne di julli ba ca ca biir julli ga nga faatu ca buñ la ko tànn ak dem ba ca jihaad ja faatu fa jihaad ja ngay gën a tànn ndax lan ca wax ci ay ngëneel ni mu baree toq deret ba njëkk a wadd rek ñu faral la say bàkkaar yépp foog naa naan loolu rëy la waaye su amee luñ dina lii duñ la ko baal bu dee boromam xel nga war ngaa xam ne loola rëy na imaamu tirmisi nettali na ñu jëlee ci sawbaan nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ko ak ruwam tàqalikoog aw yaramam nee na sunu borom dana ko tàbbal àjjana fii ak mucc na ci ñetti yëf yii bi ci jëkk mooy rëy xam ngeen yonent bi nee na ku rëy du tàbbi àjjana ñaareel bi mooy bor day fekk da ngay mucc ci ay bor ñetteel bi mooy xulul mooy li ñuy tuddee sariqatu maalil aam alal joo xam ni kees galaak alali réew mi laak alali ministère balaak alali jàkka jàkk alal ju mën a doon joo xam ni mbooloo ko moom séddaleeguñ ko wala boog dañ koo teg fa barab nga daal di cay jël nee na su fekkee loolu la moom sag dem àjjana wóoragut su fekkee da ngaa am ay bor sag dem àjjana su fekkente ni da am ku rëy gu nekk ci yow sag dem àjjana wóorut xadis boobu imam nasirul albani wéral na ko ci saxiixul jaamia mbokk julit yi bor day danger bi ci nekk yegg na ci yonent bi day sallallahu alayhi wa sallam ak ni mu bare woon yërmande ak ni mu baaxe ak ni mu yéene nit ñi tàbbi àjjana yi sunu borom ja yeggoon na ci ba ki amee bor daw ko jullee ci jamono bu yëf yi suppeekoo nag ba jullit ñi am doole mu ne annabiyu awla bil muminin ku amut lu mu fayee bor da koy fayal ba pare doo koy jullee imaamul buxaari nee na jëlee nañ ci salamata ibnul akwa mu ni benn bis dañoo toogoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu daal di koy indil ab néew nee na yonent bi ni kii amee na boro ñu ne ko déedéet bana dara ñu ne ah loolu de xamuñ ci dara bayut dara yonent bi daal di kàbbaar julleeku nu toogaat ab diir ba mu yàgg beneen waaye daal di indiwaat ab néewam yonent bi sallallahu alayhi wa ni amee na boro ñu ne waaw waaw moom de daa mel ni amee na ñetti dinaar am bu ni ñaari dinaar yonent bi daal di faxas daal rocce ku ndank genn mbolo mi dem yoonam bo lewut sax ay wax manam neeku fa di expliquer dina ko julle duma ko julle fay len borbek dedet dafa dafa ku ndank faxas ay dalam rek rocce ku dem bi mu di dem abu qatada daal di koy dab niko waw fo jëm mu ne ko jullee man duma julle néew bu am bor yalla xamne ni mbok julli di ku xam alquran ak waxi yaronte bi salaa wasallam ni mu ak fi mu war a yegg ci xolub ku ne alquran ak sunna lay dund ku toll ni yonent bi salaa salaam nga xam ne yërmande je moom boo ko doon jéem a natt sax da xayma ba sonn rek ba fa ndax ni mu baree wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yonent bi saa salaam ak ab néew ni mu yërëmtaloo nga xam ni kooku lu ko waay defal ci ndimbal rek loola xeeb na ko yonent bi mën ko fa bàyyi jël risque bàyyi ko fa dem kooka lam def ba yonent bi def loolu rëy na dafa amee bor abu qatar daal di koy fayal xadis bii de bu ma fàttalikoo lu ëpp fukki at ak nangam a ngi nii fàttaliku mu fu ma ko mas a tuddee mbaa ma jàngale ko ba noppi lu dul danaa wax baat bii may bëgg a wax mooy kenn ku nekk ci jun day kan mooy nekk sa abu qatada boo faatoo am bor abu qatada ndax dafa bokk ak waa ji dara bokkuñu dara dara lañ bokkut ndax dangaa bokk ak moom dara mu ni ñu dara waaye lii dafa yërëmtalu ku tol ne yonent bi saa sallam tiim ab nee war koo jullee ngir ñu yaakaar yërmande ci ci jullee gi mu man ko fee ba dem loolu ma mënuma koo seetaan bu yeboo nañ ko fay te maa koy gàdd te bokkut ak moom dara kenn ku nekkoon war naa xalaat bu ma faatu jëkkaloon tey te fekk amee naay bor ndax dinaa am ku ma taxawee taxawaayu abu qataada imam xaakim nettali na jëlee ci mustadrak nettali na ci mustadrak ñu jëlee ci jaabir ibni abdullah nee na benn waay dafa faatu woon ñu daal di koy sang sang ko gëttal ko teg ko ca barabu julleekaayu néew ba ni yonent bi saa sallam ko mu ne waaw seen waa ji bawut boraa waay ñu ne ahankay bàyyi na ñaari diinaar boobu benen riwaaya la mooy xadis masa jàng riwaaya xaakim nee na yonent bi daal di roccee ko arrière ndànk di dem yoonam abu qataada dab ko ni ko waaw yonent sa salam foo jëm mu ne ko jullee leen seen ab néew man duma jullee néew bu am bor bi loolu amee abu qataada ni ko jullee ko maa gàddu bor bi da ngeen bokk dara mu ni bokkuñu dara waaye lii moom dafa yërëm tëlu yonent bi daal di koy jullee sallallahu alayhi wa sallam ba noppi ni ko abu qatada huma alayk ñaari dinaar yi gàdd na sa loos de wa malik léegi sa alal lay tege de wal mayitu minhuma bari néeg moom dañ na set na ci wicc abu qatada ni ko may garanti bi yonent bi doo koy jullee sallallahu alayhi wa am na beneen riwaaya abu qatada daa xëy ca suba sax xam naa nekk ci ay yitte ba fayu ko bi daal di dajeeg moom sallallahu alayhi wa ni ko waaw naka ñaari dinaar yi mu ne ko yii man day nekkoon naa ci bu fayuma ko mu ne ko sa waa nekk gut ci jàmm de ñu xëyaat beneen yoon yonent bi dajeeg moom xam naa mu nekkaat ci ay yitte ndax léeg-léeg doomu aadama ay yitte mën na ko fànq ba mu lu mu war a def sa ñaari dinaar yi nu mu mujjee mu ne ko hee man day mu ne ko sa waa ji nekk gut ci jàmm de te ñetteelu yoon ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko waaw noo mujjee sa ñaari dinaar ya mu ni ko fayal naa ko ko démb mu ni ko al aan mi ngi doog a am jàmm xiina barratta alayhi jilda fi ne ab derama ngay doog a sedd ca biir bàmmeel mbokk julit yi xadis bi jàpp naa ne su amee lenn luñ ci gën a mën a dégg lu ni fàng loo xam ne jarut sax di expliqué mooy kon dalay wan ni boromam ak bum mën a doon ak koo ko mën a ameel ak foo ko mën a ameelee ak situation yu tax nga am ko même bu doon xiif bay waaj a dee sax nga ne xaarama lepp pour lekk nga xam ne loola moom daggan na bu baax a baax danger bu rëy rëy rëy moo ca nekk bañoon ko defe ko gën doo fekk mukk koy sàgganee lu dul ko nar a yàqule la gis nga ay bor ak ay bàkkaar ku la ko gën a ñemele mooy ku la gën a bon loolu ku baax du ko ñeme ay bor ak ay bàkkaar ku la ko gën a ñeme kooku moo la gën a bon ndax ku ñe ku baax dëgg dëgg dëgg du ñeme ay bor même bu fekkente ne yittey àdduna ju ñor gaar na ko mbokk jullit yi yéen a ma gën a xam ne ñaari dinaar ak ñaari dërëm du tus xam ngeen fii tey bu ñu tëddaloon ab néew ñu ne kii ñaata bor la am ñu ne 1000 francs la ame bor mooy tolloog ci misaal su ma doon joxe ñaari dinaar xam ngeen ni 1000 francs yooyu tuuti na tuutaay goo xam ni benn waay sax mën na ko génne ci poosam fayal kon loolu du waaye xoolal ñaari dinaar nga mën koo xayma ci 1000 francs wala téeméer ñaari dinaar yooyu kese kese kese moo mën a sonal waa ji ñetti fan ba yonent bi naa ko fi ne yaa ngi doog a seral ay yaxam kon naka moo ki nga xam ni faatu na moom bàyyi ay bor yoo xam ni kenn waxuma sax ñu xam bor ya mën koo fay déedéet waaye bor ya kan la ko amee sax xamuñu ko faf koo xam ne leb na fii lepp na fële magasin ba lepp na fa fa ñuy jëlee boutique ba lepp na fa fa muy liggéeyee leb na fa koñ ba lepp na fa même yow boo jëloon engagement fayal ko ay boram sax kan ak kan ngay fay sax doo ko xam ñaareel mooy ay bor yoo xamante ni laamu barrière la dëgg dëgg mënoo koo layal xam nga kiñ ni kii kat dafa xëy amut lu mu lekk dafa xiif ba amut lu mu taal bu dem ca boutique ba lem mbir fara yu mu lekk loolu xel nangu na ko loolu koo ko nettali mu ni wax dëgg yàlla xel nangu na ko ki nga xamante ni dafa rafle ba amul benn yére bu mu sol mu dem leb ab yére bu mu sol ku ne xam ne ni loola kat xel nangu na ko waaye nun mbokk jullit bu ñu waxante dëgg lebeewun noonu de déedéet lebeewun noonu de fasal nafsak laajal sa bopp man ma laaj sama bopp yet wiit dalul ci kaw kenn kese sunu kaw ñun ñëpp la dal kenn ku ci nekk boo waxee sa digganteek sa borom yàlla xam nga ni yaa ngi lebaatuy dem ay lebaatu yoo xamante ni amut aw lay te doo ci am ndimbalu suñu borom de déedéet ndax yonent bi saa salaam ne ne képp ku leb te fekk bi muy leb da ci am aajo ba pare am na yéene fay borom bi dana ko yombalal ba mu fay waaye ki nga xam ne mu ngi leb te amul aajo ca la muy leb te boo demee sax yéeneem fay nekku ca kooko borom bi dana ko jafeel ba du ko mën a fay sunu bor yu bare bare ngi nii mënuñu koo fay bu ñu waxantee dëgg ngir yàlla bañ koy leb yéeney fay nekkul sunu xol lu bare bare bari ci nit ki dana ñaan sunu borom du ko nangu fekk la nga wees ca gannaaw moo baaxut naka moo kenn ci ñun koo xam ne tey dafa faatu bàyyi ay bor yoo xam ni kenn xamut mu toll kenn mënu koo dajale la gën a metti mooy benn bor ya amut benn illa bu ñor buñ man ni moo tax nit ki leb su fekkoon illa bu ñor la mënu ni diw da bu njëkkoon da ngay gis koo xam ni bu faatoo dañ nan kii day xanaa boutique ba ne ca koñ ba rek dem leen fa ngeen laaj jeex bu jeexee boutique ba amut fenn fu mu amee bor waaye da ngay gis nit dana amee ci ay bor amee fii amee fële léeg-léeg nga gis nit di leb ngir loo xam wallahi yàlla xam ne ne ab téléphone du nécessité du nécessité de téléphone du nécessité yére yu bari yii ñuy leb du nécessité ay dàll du nécessité li tax ma ne du nécessité mooy kenn ku ci nekk ci ñun bu dee dàll am nga benn paire boo sol kenn ku ci nekk bu dee yëre am nga benn boo man a sol ay nit yu la gën fuuf faw ñuy jàng dund salafu saalix ndax bari na boo bëggee màmm dana la tourné waa da ngay gis koo xam ni imaamun fi diini wal ilmi wal wara wa zuhdi wa tuqa ñu naan la benn dàll la amoon nag imam ahmad amna na dàll woo xamante ni fukki at ak juróom-ñett nekk naak moom muy dabb daaxeeg xam ngeen ni kooko su bëggoon ñaan sax bu ko defoon ñu may ko waxuma la ak mu naan day lebi kon yu bare bare bare ñun ñoo ko togg ci sunu dund gi moo xam waruwaay la moo xam dëkkuwaay la am kër du nécessité déedéet boo ko amee def ko ay nit yu mag yu la gën fuuf dund nañ ba faatu amuñu kër benn pression kenn teguloo ko pour nga am kër te la ca gën a gën a gën a raglu nag mooy koo xam ne amee na bor faatu bàyyiwaale ko waaye yoon wam jaaree pour leb sax daganu teg ci ndax xam ngeen ni système yii ñuy lebee amul bu ci dagan daganu de bépp lebal boo xamante ni kaay ma tegal la ci nangam lebal yooye riba la te ñu bare bare bari ci ñun naka ngay yaakaaree ni kër goo xam ni yaa ngi ko fondement tabax ko ci loo xam ni yàlla bëgg ko tabax ko ci loo xam ni sunu borom nee na déclaré naa la guerre yow nga defa séentu takk fa soxna su la déggal yow yaa ngi séentu jur fa doom ju baax yow yaa ngi séentu jaamu yàlla jaamu yàlla gu ñu nangu lan moo tax fuqaha yi dem bay werante ci suuf si nga xam nit ki da koo siif sax di ca julli am na ci borom ñu bu jullee sax julli gi baaxul lan moo indi masala moomu parce que dañuy fi mu taxaw julli moomu ko da loolu am na ko wax ci borom xam-xam yi doone sax du du du du ak dëppoo kon bu ñu demee ba masala moomu nekk masalam fiq fa kay fa ka kër gi nga tabax nga xam ne yaa ngi ko tabax ci loo xamante ni jaaduwut alali jàmbur nga dajale riba nga jël yëfi jàmbur nga jël dajale mënoo muus ak a cet ci àdduna ba jël lu ëpp li la sun borom jox wallahi boo ko jéemee xëccu di nga ko fajoo ji mbaa nga dee ba ko fi waaye doo ko jariñoo benn doo ibn al qayyim rahimahullahu day nettili pour wan la ni la benn bakkan du faatu lu dul wërsëgam dana jeex benn waaye dafa rëcc tàbbi ci teen nit ñi defee ne dee na ñu lugat ko lugat ba génne teg ko ci pindu teen bi muy expliquer nan la def ba tàbbi ci teen bi fi muy expliqué ñu jox ko kaasab soow fi mu koy yóotu rek tàbbiwaat ci biir teen bi ba mu tàbbee ñaari leen ci la ci la faatu ibnul qayyim mu ni génn gi mu génn bay expliqué dafa fekk dese woon na fi benn kaasu soow bu mu war a naan moo tax faw mu naan ko doog a tàbbiwaat ci teen de kon mu dee ci dee tàbbi gu jëkk ga kon amul benn bakkan buy faatu lu dut li nga war a am ci wërsëg di nga ko am ëppal nan yàkkamti nañ mënoo fee judd barki démboo njaay ludul jeex nga bëgg ko fee dajale di noggatu nit ñi di naxaka tiriyaaka wax lépp suba ma ñëw te doo ñëw ginnaaw suba di yàq der sa sa der di yàq sa deri mbokk julit loolu mbokk yi jëru ko yu bare bare bare ñu dañ koy def jàpp ni nécessité la fekk du nécessité de boo ca sàkkum ndimbal suñu borom du la dimbali parce que la muy dimbalee waate wax na ko ba pare moom suñu borom subhanahu wa taala kon borom bi tabaraka wa taala mu ne wa in xiftum aylatan fa sawfa yughnikum allah min fadli bu dee ak ñàkk ngay tiit aw ma nangam dinaa ko am ñaanal yàlla wasalullah min fadli ñaanal yàlla mu defal la ci ay ngëneelam su mënta ñàkk ba loo sol nga yam ca loo lekk nga yam ca loo naan nga yam ca yi nga xam ne yii kat moom boo ko defut mën ngaa lor ba sa bakkan des ca wala mu jege ko wala feebar nga wala feebarale nga ila axirihi waaye ñu bari ci ñun ku natt sa diggante ak yàlla di nga xam ne li la yóbbee ay bor nekkul looy séentee ndimbal sunu borom parce que kenn santu la ko ñu ànd xam ni mbokk julit di bor mën naa dox diggante nit ki sax ak bi àjjana ak lu mu baax baax baax benn bis yonent bi dafa xutba ba mu yàgg mu ne waaw yéen mbooloo mi kan moo ci bokk ak diw gaa yi ni ci la mu ni yéen mbooloo mi kan moo ci bokk ak diw gaa yi ni ci yàlla mu ni yéen mbooloo mi laay waxal kan moo ci bokk ak diw benn waay daal di yëkkati loo ni ko ah man de mi mbokkum deretam laa yonent bi ni ko waaw ñetti yoon maa ngi laajte wuyuwoo ma lan moo tax woote bu njëkk bi wuyuwoo ci man moo ne li ma nar a wax jàmm dong la di musiba amu ci di seen waa jooju ngeen suul day ba noppi seen mbokk moomu ngeen suul ba jàpp ni fi ne ma nga ca jàmm ngeen nekk ci leneen saye boo ngeen yëg ni fi mu nekk ni ña ngi koy saisir ngir ay borom ca àllaaxira benn riwaay dani gis naa ko ñu koy fayal di ko fayal muy nekk ci ay jafe ñu koy fayal mu cay génn ba bor jeex tàkk ci la doog am jàmm xadis boobu imaam Abi ko waaye beneen riwaaya dafa wax ni inna arrajula alladi maata fiikum qad ixtubisa an il janna ki nga xamante ni mooy seen mbokk mi faatu ma nga buntu àjjana ba léegi mënagul a dugg min ajli dayn alladi alayhi ab bor bu mu amoon waxul ay bor de waxul ay bor yu mu amee woon ab bor bu mu amee woon muy benn bor nee na fa in shi'tum fafduuhu su ngeen ko bëggee njotal bu yeboo gen gaaw fayal ko bor bi ngir mu dem tàbbi àjjana wa in shi'tum bu leen soobee nag faslimuhu ila adabillah bàyyi leen ko mu dem sawara kon benn yoon kon mbir mi yegg na ci ba nan ko ko gaaw fayal ngir mu sauver bu fekkee ñu sauvé ko kon nañ ko bàyyi mu dem sawara kon mbokk juli di jàpp na ne hadith yu mel nii ak yeneeni hadith yu bari yoo xam ne danañ ko fekk ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam raglu na genn xeetuk raglu goo xam ni lu bare bare bare bare bari ci nit ñi tey ka gën a jàmbaare mooy koo xamante ni ma ngay leb ngir farata sa waay du ko bind faf xoolal ni nga fonkee sa carte d'identité bi nga xamante boo faatu woon ana carte kenn du ko laaj dana nga xam fa koy denc xoolal sa poset yi xoolal sa pièces yi xoolal nim la jege wutal aw kayit nga bind ci nangam ak nangam ak nangam moom laa amee fan yii bi may waajal xutba bi benn waay dafa ma nettili jëmm joo xam ni man musuma dégg lu mel noonu musuma koo gis benn yoon laa ko mës a dégg muy boobu benn waay boo xamee dafa yëkkati loxoom mu ni man musuma amee nit dara mu dem ba jamono njatt ko mu leb benn cinquante mille bi ma ko mbokk mi nekk télé ma ni ko wallahi kooka de su ma yëgoonte woon ak moom dinaa ko dénk ni ko def nga kéemaan ci jamono goo xam ne jarul bu yeboo sax bu nga dee bu ko leb parce que lii lu histoire di mën a nettali la nit ku mën a yëkkati loxoom ne man ameelu ma kenn dara ma ni kooku ak lu la mën a gaar ci àdduna ba fukki junn yooyu nga leb jëruloon nga di ko leb faral ko bàyyi parce que lii nga def nii lu histoire war a mën a nettali la ëllëg nga xam ne day mel ni kon ca magi salaf ya la ñuy wax ku defoon lu mel noonu beneen bi ci des mooy da ngay gis koo xam ni wax dëgg yàlla li muy def nekkut ak leb waaye ak njuba ji la bëgg a ci kaw nit ñi la ndax am na yoo xamante ni xam nga ni kat soo ko jëlee wóor na sa diggante yàlla mënoo koo fay loola nekkatul lépp loolu jubadi la beneen bi ci des mooy doomu aadama ak lu ko njat ci bor ak lu mu diis diis bu defee la yonent bi digle woon sallallahu alayhi wa sallam ci ñaan allahuma kfini bi xalalika an xaramik waxnini bi fadlika an man siwaak fi qadimi zaman wa xadithi te bu yàgg ak tey ay nit am nañ ay bor di ñaan borom bi tabaraka wa taala ci ñaan yi yàlla wallu leen wallu goo xam ni mat naa bind ci ay téere ndax dafa yéeme moo lay wan ni kon ñooña kat firi nañ wax yéen sa salam boo lebee te fekk yéene nga fay suñu borom dana la jàppale waaye nit koo xam ni dese nga fay 1000 francs dese fee 5000 lépp cent mille fële lépp nangam fële lépp nangam fële ay yëf-yëfaan yoo xam ne yow même nit bu taxawoon bëgg a nekk sa abu xataada sax du ko mën a nekk parce que li tax du ko mën a nekk mooy kan ak kan lay fay xamu ko ca kaw ga maa ngi fàttaliku fekkee naa benn miraas moo xam ne musuma fekkee miraas bu gaawee noonu taf ko jub lu tax affaire bi benn complication amu ci amut bor deful nangam amut poñatum aduna tool ya ñaata mango la ñu ni nangam ak nangam ak nangam fas waa ngi ci kër masjid affaire bu gaaw nit ñi juk dem imam ba wax fa wax ju am solo imam jamu ni gis ngeen de aduna ku fi yam nala sun borom yamloo so de noppal noppal say bok aka wax lu wér li ba ma ngi ko aka yag ay adu yu yàgg la boobu ñu ngi nekk ay tout tank ci daara ji di jang waye ni la ko waxe aduna bo fi nekké noppal sa bok bo faato di nga noppulu yam fan la lo di nga noppulu noppal say bok mbok julit yi nañu and ragal yalla te xamni ñu ngi góorgóorlu ci ay jaamu yalla yu reey yo xamni ni na ci aljana waye ñoo ngi jëflante nit ñi ci xéeti jëflante bu yees bo xamante ni day mbolim lo liggéeyoon man na koo comme ni shirk di mabbe say jaamu yalla ndax fi amul jihad defena bañ tambali ci jihad, kon jëratul ñu nan waja daana qiyamul layl daana ñew ci koor ga mo ran def nangam fukki junniy kaamil yi ñëwoon ca réew ma moo ko fa séddale woon yóbbu na diw a diw màkk xam nga ni jëru ko parce que bu ñu tàmbalee ci jihaad jëru ñu dudd la gën a suufe kon xeeti jaamu yàlla yi nga indi lu mu bari bari te fekk mbir mi yaa ngi koy fooyee man ngaa faatu de ñu sang la sang la jullee la mbooloom pas-pasum ñeen fukk yépp fekkee ko yooyu yépp yi waral nit ajj dem àjjana yépp daje ci yow ñu yóbbu suul la dikk defe ne yëf yi kat nangu na fekk yaa nga buntu àjjana mënoo jàll ndax say bor mbokk jullit nu ngi dénk sunu bop di len dénk nu bàyyi xel ni li day ken du ko foye bari wana shaytan léeg-léeg yaaidukumul faqra bo deful li do meuna def nangam faw lii mënta ñak boko defé defee xaaral am na yaakar may yaakaar du ci sukkandiku ngir dara bayil ba mu ñëw nga def la ngay def so loro nak ba xamni meunuto ñak huwa a'lam bi man ittaqa yàlla moy xam ka gëna ragal yàlla